rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanal bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain tey mooy sunu juróom-ñaar fukkeelu jotaay ak ñaar muy 72 ci sunu muqaddamatul iziya lil alaama abilhasan aliyin almaliki shadili rahmatullahi alayhi wa radiya anhu noo ngi ci fase ba tey nekk benn pàcc ci wàllu sëy leerloo nañu paseem sunna noonu mu ko tënkee woon tey mu ñëw ci ay atte atte yoo xam ne day aju ci wàllu fase mu tàmbalee ci waman qaala li zawjatihi anti taaliqun fa hiya waxidatun xataa yanwiya aksara min dalika wa man qaala ku wax li yi ñeel jabaram ja soxnaam sa jabar lañu war a wax dëgg-dëgg bu dee dañuy wax olof ne anti yow day taaliqun aji fasewu nga fahiya kon loolu waahidatun menn fase la xataa yen wi ya mbate mu yéene moom jëkkër ji ak sara lu ëpp min ci menn fase maanaam nit bu nee soxnaam fase naa la ah dañuy jàpp ne rek kon menn fase la ndax loolu lañ ciy déggee ci kaw ba noonu arabit mu ne soxnaam anti taliqun dañuy jàpp ne menn fase la loolu nag jëkkër ji dane fase naa la googu ma ko wax ñetti yoon laa ci jublu wala anti taarixun googu ma ko wax ñetti fase laa ci jublu ah su boobaa nag ñetti fase yam wax wala mun a ñaar ñu jàppal ko loola ndax nit ki wax moom moo xam lim bëgg ak lim jublu mhm. wal xulu summiku wala summikonte wal xulu summiku day baat bi nim ñëwee fii rek talqatun am pase la ba inatun buy aji facc laa rojaata goo xam ne déet ak fay li fii di ca nekk wa in lam yu sammi ak doonte tudd tolaaxan ak fase moom jëkkër ja ida aatathu ndem jox na ko moom jabar yi shay an dara yaxlauha loo xam ne dana dana ko summikoo bihaa ci moom yaxlauha dana summikoonteeg moom bihaa ci moom min nafsihi ci boppam daa am lu ñu tuddee al ci xeetu fase la bokk xuluu summiku mooy bu fekkee jigéen ji ci boppam moo bëgg a génn ci sëy bi ma ne góor gi fasewu ko waaye daal jigéen ci boppam moo dem ba am na ngànt daal mënatud a ànd ak boroom kër gi bu fekkee nag borom kër gi ci boppam dañoo seet ne boroom kër gi moo koy lor ni ki da dóor wala ndekete ginnaaw bi borom kër bi day naan sàngara xëy na xamu ko woon ah, di ko lor xëy na nam waree sàmm diinam ak njabootam mu bëgg a génn ci sëy bi kooko su boobaa moom bu àttee amoon dañ naan jëkkër ji faaw da koy fase wala boo ko nanguwut a fase yoon mooy tas sëy bi kooku jigéen ji du joxe dara waaye bu fekkee nag jigéen ji moom ngàntul boppam la am léegi mooy daal sama mbëggeel moo nekkalul ci moom moom daal am na ngàntul boppam bëggatul a nekk ci nekk ci sëy bi kooku sañ naa jël alal. mën naa jël nag la ñuy tuddee may gu njëkk li olof yi tuddee may gu njëkk waaw bañ ma lay may de trois cent mille lañ la laajoon trois cent mille yaa ngi nii ma bëgg rek nga jéggal ma wala boog mu nekk loo xam ne dañ ciy waxtaan ba juboo ni ki jëkkal ji ne ah, léegi kon amul solo boo ma joxee cent mille boo ma joxee cinquante mille fukki junni boo ma joxee juróomi junni boo ma joxee ñaar dërëm lu man a wax rek incha allah kon ma kii la bu fekkee loola dafa diis nag kon ñu xool lu jaadu ndaw sa xool lu jaadu rek ñu waxtaan ba juboo ci dara amma nag li ko waaje mayoon ci sëy bi moom loolu moom kenn du ko delloo maanaam jëkkër ji lu ko mën a wax ne ko comme da ngaa bëgg ma fase la mboolum lu ma la mas a may wala déedéet loolu du ko sañ la ko may moom perte nga ko moom kay lii beneen atte bu bees la neel boo yëkkatee nangam jox ma rek waaye bul ne damay xool nag ma mayoon lépp loolu bari na góor ñu jeng ñoo xam ne dañuy fitnaal jigéen te yonent bi nee na góor gi gën a bon ki gën a bon mooy góor goo xam ne day fitnaal jigéen ak di ko xoroñoo ñal di ko xor ñooñal du ma la fase jox ma nangam di ko laaj lu diis eh, di dem ak a ñëw rek di duñ nga ngoo fase di ko xor ñooñal daal ndax li mu ñaan baat rek loolu góor gu bon rek moo koy def yàlla na ci yàlla musal ndaw si tamit bu dee ne sa dëgg-dëgg moom moo tooñ ne ki fekk góor nga jekk-jekk dugg ci ngir alal jam am tappaas ko bëgg a dem yóbbaale alal ji ak yu mel noona alal jooju dëgganut loolu ba tey loolu dëgganut loolu wor la te yàlla nee na laa yahdi kaydal xaainin warkat yi seeni mbir du jub mukk dal luñ ci yàlla musa waaye alal jooji dëgganut dafa war a bàyyi lépp dem yoonam loolu dëgganut loolu wax summi konte nag la wax ne bu fekkee jigéen ñi daal moo doyal ci sëy bi bëgg a jotoo mën naa waxtaan ak borom këram yëkkati dara jox ko ne damaa bëgg nga euh, téye lii te may ma sama baat loolu boo ko joxee jëkkër ji jëkkër ji jël ko rek fase am na doonte jëkkër ji néew ko fase naa la jël gi mu ko jël te xam na li tax mu jox ko ko mooy mu libre su loolu am fase la fase moom yi nag la wax ne talaqatun baina la rajaata fiha fase la moo xam ne mu facc la maanaam mënee su koo fayli xam nga nit bu fasee soxnaam mel ne fase nii rek kooka mën nañoo waxtaanaat ndaw sa ñëw baalu àq wala góor ga baalu àq wala ñu xool ndaw sa ñëw toogaat ci sëy ba kenn du ko fasaat du te dees na leen rëddal menn fase nag moom waaye daal mën nañu waxtaan ba jubóo rek ndaw si ñëwaat waaye fase mii nag muy summi konte ndaw si joxe dara jëkkër ji jël ko ak doon néewu ko fase naa la sax sëy ba moom facc na maanaam mënuñoo waxtaanaat ba jubóo góor gi bu ko bëggaatoon bu idda ji jeexee mën na koo takk rek takk comme yoon moom jaaroon lay jaar mooy dem joxe ak can ñu fasaat ko waaye du deesu ko mën a defaraat mhm. ndax fay li moom góor gi moo ko moom te bu fekkoon ne ndaw si day fay xaalis ba noppi góor gi jékki-jékki na ko fay li naa la kon alal jëm joxoon da koy dafa dem noonu suddan ci neen rek ndax moo loolu day su ko nangu ne boo ko joxee dara loo xam ne lam ci jublu mooy day summi konte ah góor gi nangu koo jël moo xam loola bari na wala néew na a ah su boobaa day incha allahu rabbi fase moom day daal di tàbbi day daal di tàbbi bu dee jigéen la joo xam daa am kilifa nag ni ki xelum dafa matul wala nangam kon loolu kilifaam la ñuy jëflanteel ci wàllu loolu wàllu fase moom eh, ku ci ku ci ko xam ne ci ñoom ñaari way dencante dafa amul xel wala nangam xam ah, dañ ko yilif rek amul xel mu muy soppante ko bañ mën koo yilif kon kilifaam mooy taxaw palaasam bu dee góor boo xam ne ndeysaan xelam dafa matut dafa manqué dafa dof li ñu tudde dof te fekk fil xaqiqa dëgg dëgg dof mooy ku yàlla ba di ko mooy kooku rek mooy ab dof koo xam adduna ni mënee war ay nit ba noppi nga topp adduna loolu mooy dof waaye koo xam ne xelam daa matul nii rek ci mbiri adduna loolu moom du dara nattu suñu boroom la waaye ku mel noonu bu takkoon jabar kooku du man a dem naan da koy fase de kilifaam ci boppam mooy dem ba xool la gis ne soxna si baaxut wala nangam kilifaam ñëw fase waaye moom bu fasee dee su ko dégg ndax amul xel mu may saytu ay mbiram loolu mooy sumi konte mu jaali ci leneen mu ne wa arkaanu talaaqi ponki passé arbaatun yent la fase bu fekkoon ne am mbaar la am na ñeenti jën yu koy yem yoo xam ne faw ñu daje al awalu aji njëkk ja muuqiu talaaxi aja tàbbal fase ma mooy ki nga xam ne mooy fase te mooy jëkkër ji rek wa shartuhu shartam nag an yakuna mooy mu nekk musliman dib jullit mukallafan di mukallaf ko ñu toog jëf fala yanaaqidu kon du fasu talaaqul kaafiri fasem ab yéefar wala sabi yi du caaginu gone wala man du caageen koo xam ne zaala dafa tàqali koog aqluhu xelam wala zaala dafa dañ dangan fi'lu maadin la aqluhu nekk faa'ilam dañ na dem na aqluhu xelam ma bi jununin ci sababu ak ndof aw ixmaa'in wala xëm aw naxwi dalik wala lu nuroog loolu ponk bu njëkk bi mooy jëkkër ji nga xam ne moom mooy wax mooy tàbbal fase mi mooy tàbbal fase jooji dañ ciy sart ay sart wala boog ki koy joxe mën naa bañ a nekk jëkkër ji de bu fekkee daa nekk dof bi ma wax nga ne dañ koy yilif kon kooku du du jëmmi jëkkër ji ndax dox bi mooy jëkkër ji waaye kay joxe fase mi kilifa ga lay doon maanaam daal kii fase daal faaw day nekk lan day nekk ab jullit ndax ab yéefar moom duñ ko bàyyi muy yilif ab jullit ba di ko ba di ko faseel wala lu ko nuru mhm. faaw day nekk ab jullit nee nañ nag bu fekkee ne ab yéefar dañ ko yóbbandi am fase rek kooku su boobaa ak ab rek la loolu dara nekku ci waaye ka fase si dëgg-dëgg nag kooku moom ab jullit la ñaaral ba kii fase day nekk mu kallaf kon gone goo xam kallafeegut nga ne baayam wala kilifaam moo yor ay mbiram mën a jekk yeeg dem fase soxnaam faaw kilifaam mooy fase mooy dem gis ne lii jaadut nangam nangam mu doog a nangu loola hmm. koo xam ne amul am xelit faseem kenn du ko jàpp moo xam nag la yóbbu am xelam dafa dof wala dafa xëm wala lu nuroog loola wala dafa feebar ni sibiru di di waxantu naan man fase naa sama soxna ak yu mel noona ñoo xam ne kii nekku fi kooka loolu kenn du ko jàpp wala dof bu fekkee dafa fase soxnaam kenn du ko jàpp waaye nag nee ñu ba mu des nag bu fekkee ne la yóbbu xel ma moom moo ko def moo ko tey te loolu ak mooy yàlla la moom la moom lay waaj a wax noonu hmm, kon daal kii fase moom faaw mu am li ñu tuddee présence d'esprit faaw xelam nekk fi xelam nekk fi ci boppam man xam na li muy wax wasakraanu aji màndi bi xamrin ci sàngara am ñollu aw nabidin wala ab xooj nabid euh, dañuy jël raisin wala dara xooj ko ba mu yàgg nga ne bu ko nit ki naanee day màndi nabid Hmm. almashhur la siiw de nufuudu talaaqihi mooy wëyug faseem ma dégg kon kii moom man naam xelam nekku fi de waaye bu fasee dañuy jàpp ne fase ma tàbbi na mooy kan koo xam daa dem lu aram gens dégg nga wala mu naan sàngara mu xam sàngara sa lu mu sàngara wala mu doregaw ba xelam dem nga xam ne kon dafa jëfandikoo lu aram ba xel ma dem koo kee bu fasee dañ koy yar de dañ naa ko comme yow la yóbbu sa xel ma yaa ko tey fas mi day tàbbi bu demee ba xelam ñëwaat mu ne man tayuma ko wala nanga dañ naan waaye li nga jëfandikoo yaa ko tay kon nag day mel ne yaa ko tay rek kooko nag nee na la siiw donte am na ñu wax ne kooko est-ce que fas mi dana tàbbi waaye na la ca siiw daal euh, nee na kooku fase moom day tàbbi dafa am werante waaye nag la ca siiw daal mooy la nga xamee ne kathura qailuhu ñi wax bari nañu loolu mooy fase ma day day tàbbi xaala wax na fil jawaahiri ca jawaahir xëy na jawaahirul iklil xanaa la bëgg a wax wa zaahiruhu la feeñ ca wax ja de mooy may mayyaza moo xam ràññee na am laa wala déet mooy kookee ka màndi borom jawaahir nee na kooku màndi duñ xool ba xam màndi ga nu mu demee ba xam dafa màndi ba xamul fu mu nekk xamul asamaan ak suuf wala boog dafa màndi waaye bi màndi gi kat teewut mi ngi ràññee xam nga léeg-léeg gis ku màndi koo xam teewut dana kii dana màndi nii waaye teewut dana mën a def dana mën a def yu ràññee ko dana mën a wax loolu wax ji dana dëng waaye daal dana ràññee dara xàmmee yenn yi nga xel mi demul cent pour cent na ñoom moo xam nga daa am ñoo xam dañ ne bu fekkee dafa jëfandikoo lu araam waaye bi muy fasee booba xaw naa am tuuti xel kooka subaa la fase mee doog a tàbbi waaye bu fekkee dafa man di man goo xam ne xamiwut asamaan ak suuf xamiwut nit ak mbaam xamiwul dara kooku dafa yor atteb dof rek kooku moom bu fasee fase ma du tàbbi mhm. kon nag kooku moom day dugg ci masalam waa ji moom xam nga ne xelam nekku fi te gis nga bi mu fasee nee ñu fase ma kat dañ ko koy dañ ko koy topp waxtaraza waxtarasa mu ngi wattandiku exception maanaam wattandiku na bi xawlihi ci waxam ñi wax bi xamrin aw nabidin wax jooju mu wax ne bu fekkee dafa màndee ci sàngara wala am xooj mi ngi wattandiku amma ci law shariba bu naanoon labanan soow aw akala wala mu lekk taaman aw ñam xalaalan wuy aja dagan aw dawaan wala médicament saafara fa sakira mu màndi minhu ca loolee fa innahu naka moom in tollaqa ndem fase na fii tilkal xaalati ci boobee situation ca boobee mbir ca woo ca woowee melo laa yalzamu kon de du ko war talaaxun ak fase ijmaan dëppoog borom xam-xam yépp nee na waa ji li tax ñu jàppe ko fase mi mooy jëfandikoo gi mu jëfandikoo lu araam waaye bu fekkoon ne dafa jëfandikoo lu dagan naan am soow wala mu naan lem wala mu am lekk gu mu lekk wala mu jël ay raisin ci boppam lekk ci lu bari wala tàndarma mu lekk ci lu bari wala boog daa feebaroon ñu jox ko garab mu jël ko ay doomal dara loolu mel ne ko ko màndiloo hmm? wala dañ koo pikiir xeet yu mel noon daal nga xam daal moom bàkkaar amu ca defut lu aay kooka moom bu xelam demee ginnaaw bi bu fasee soxnaam kooka moom deesu ko jàpp loolu moom amul werante la am werante kay mooy mooy lale mooy soxna kon ponk bu njëkk bi wax na la fase am na ñeenti ponk mooy ki nga xam ne mooy génne fase bi mooy waa yi jëkkër ji wala ba kii yilif jëkkër ji rek mu ñëw ci ñaareelu ponk bi astaani ponk ñaareel bi almahallu mooy barab bi fase bi ci ki muy dal ci kawam boo xóota moom azawjatu mooy soxna sa azawjatu mooy soxna si moom mooy ki ñuy fase wa shartuhu sartam milku zawji mooy moomeelu jëkkër ji ismatal mar'ati buumug ndaw si xabla talaaxi njëkk a fase mi jigéen ji ñuy fase kooko faaw ki koy fase day fekk ne moomum ak buumam maanaam day fekk ne mooy jëkkëram masalan jigéen joo xam sa jabar mënoo koo fase mënoo dem di fase jabari jàmbur loolu mënta nekk ndax yow moomu ak buumam ba da ko fase maanaam buum gi du yow yaa ko fas ba da ko ba da fecc kon jigéen ju nekk jëkkëram képp moo ko mën a fase wala bu fekkee jëkkëram xelam daa matut ba ñu dénk ko kenn ko kañ ko dénk bàyyam wala kooka yor ay mbiram ni mu dofale yu mel noonu wees woon nañ ko kon kooka allah kon jigéen joo tëkkakut mënu koo fase waaye nag mm, woote naag masala bi ñuy faral di jàngale boroom xalin jigéen boo ko tëkkagut nga ne ko yow Fatou Diop kat su ma la takkee fasewu nga xam nga tëkkoo waaye da aj fase mi ci boo boo ko takkee xam nga néew ko fase naa la nga ne ko su la takkee rek fase naa la kon bu yàlla dogal nga dem takk ko rek fase wu naa ca saasa da nga ne ko fase moom bu ma la takkee donte am na ñuy bañ lool ndax dañ loolu daal résu ko nangu ndax wax dëgg ko waaye nag yow loolu nga su ma la takkee waxtu bu takkee rek nga xam ne kon fasal nañ ma la man fecc naa ko fase naa la ne ne loolu subaa day tàbbi de subaa loolu day tàbbi ay masala yu bari la yoo xam ne borom xalil ma ngi koy indi kon mi ngi noonu jabar ji day fekk jëkkër ji moom ak buumam góor gi koy fasee day fekk mu am ca sañ-sañ moom buumam asaalisatu ñetteelu ponk ba alxasdu moo di jublu ga fa man sawaxa képp koo xam dafa jiitu dafa rëcc lisaanuhu làmmiñam ba ila talaaxi jëm ci am fase lam yaqa du tàbbi alayhi ci moom talaaxun menn fase dégg nga mooy kii fase da ko ciy jublu moom moo jubloo fase waaye ku jékki jekk rek eh, am lu mu bëgg wax soxna ba yàgg mu ne ko fase naa la nga ne loolu tëyu ko loolu kenn du ko jàppee am fase wala mu wax làkk woo xam ne làkk wa la tekki mooy jabaram fase wu na te mu xamu ko hmm? nekki eh, ñu ñu ne ko rek neel sa soxna anti taalixun mu daal ne soxna anti taalixun loolu arab la ginnaaw bi ñu ne ko yow fase nga sa soxna ndax anti taalixun loolu lay firi mu ne man xaw ma joon dara kon jubluwu ko ca kon jubluwu ko ca waaye bu ko ci xasee ba nga ne li muy wax bu xasee ba xam ne lii am fase la mu fase soxnaam rek loolu mu day wér bokkut ak nag nit ki di fox di fo naan soxnaam fase naa loolu mu fase la fase mu tàbbi la waaw boo ne folaat jubluwoon it loolu kenn du ko nangu fase kenn du ko fowe moom kay liñ lay nangul mooy baat bi bi muy génn dala rëcc yow jubluwoo ko woon leneen nga bëggoon a wax waaye bu dee xam nga ne yow yaa wax sa son te yaa ko tey waaye nag danga ne rek li ma jub jublu woo joon fase damaa jubloonu fo loola du tee dañ koy jàppee am fase moo xam da ngeen doon théâtre moo xam da ngeen doon mën a def fase moom deesu ci fo moog maye moog maye maye jigéen deesu ci fo fi ne ab bàyyi bàyyi jigéen ji bu ne sama doom ju jigéen ji may naa la ko <laughs> nga ne nangu naa jeex na ab sëy am na de donte sax da doon fo nii di ko wax rek loolu suba ab sëy am na doonte can gi amagut ak seede yi ndax loola ginna ginnaaw bi mënees na koo def moo tax ñaar yooyu kenn du ci fo kenn du ci fo kon ku làmmiñam rëcc rek mu jekkee wax ko te jubluwu ko ci wala mu wax aw làkk woo xam ne xamu ko loolu fasalu ci am wala yaqamu du tàbbi talaaqul mukrahi pasem ku ñu forcé ba tey kooku jubluñ ko koo xam ne dañ ne ko da ngay forcé sa soxna wala ñu rey la wala wala ñu dóor la wala wala ñu xawi sa suutar wala nangam mu ne fase naa ko mu ne sama soxna fase naa ko wala mu ne soxnaam fase naa la fase moom kenn du ko bàyyi xel talaaqul mukrahi laa yajuuz imam Malik amoon na ci bis de bis bu métti sax waaw waaw maanaam ana buur bu ñu tuddee eh, naa Jafar Jafar ibnu Suleymaan defe naa lañ wax moo nekkoon gouverneur madinatul munawwara ba mu demee ci nit ñi bëgg nit ñi jaayanteek moom maanaam bëgg nit ñi ñëw jébbalu ci moom xeetu jaayante nit ñi am ñu lànk ñu leen di forcer képp koo xam ne nangoo jaayen dañu forcé la ci nga fase sa soxna ñetti fase ginnaaw bi nit ñi di ko laaj imam Malik imam Malik ne talaqul mukarih laay loolu du fase fase moom bu ñu ca forcé nit loolu amatul ñu dem ne buur bi imam Malik nee na nangam kon sa jaayante gi ngay forcé nit ñi nee nañ daa jaayante gi baaxut ndax da leen a forcé ngir ñu jaayante hmm. yooyu am ay coow ak ay ñàkk déggoo ba kooka ndeysaan yàlla nattu ko ñu jàpp imam imam dem duma ko euh, ñu xaw a doy waar borom xam ne di faral di dal wa ala kulli hal talaaqul mukrahi laa yajuz wala yaqa'u talaaqul talaaqul mukrahi alxuraan sax nee na laa ikraha fi diin nit nga bëgg ko dugal ci diin ne ko faaw nga tuub sax kenn du ci forcer kenn ndax boo na ko tuubal danaa la waaw naa te fekk te tuub li ci bëgg nag mu nekk moo xam ne day dugg ci ab xol hmm. wala maa yadxulul imaan fii quluubikum faaw faaw ngëm gi day dugg ci xol bi loolu mooy tuub waaye wax gi nii moom amul njariñ kon bëgguñu di forcer nit ñi ñuy tuub nii wala nga dem bitim de di takk jabar naa ko léegi da ngay tuub boo tuubu du ma la takk nga ne kon takk gee tax muy tuub loolu amul njariñ tuub moom da nga ci bàyyi nit ki bam ba xam ne lii mooy dëgg mu doo ko tuub wala yaqaxu talaaqul mukrahi fasem forcé du tàbbi de arabe wu ñeenteelu ponk bi te nee na woon ñeent la allawtu mooy baat ba mooy baat bi ñuy wax ñu xam ne fase am na jëkkër am na dégg jëkkër am na sart yi ñu ko saataloon am na mooy du gone du ab dof du yéefar jabar ji am na moom lañuy ñuy fase te jabar ji kat jëkkër ji moom ak buumam kon boobu am na jublu gi am na léegi nag ban baat la ñuy wax lan lay wax wala jën jën jëf lay jëf ñu xam ne kon fase am na mooy baat bi ñu jëmmi fasa bi moo tax ma ne araabi ñeenteelu ponk ba allahu mooy baat ba aw maa wala loo xam ne yaqumu day taxaw maqaamahu palaasu baat ba minal li ci jëf baat bi ngay wax ba tax ñu ne kii de fase na soxnaam wala jëf ji muy jëf man naa nekk jëf ni ki ab leetar jëf la dégg ah, mu lànk bañ a moom li ñu tuddee ila ila lesina yuuluuna min nisaihim tarabusu arbaade ashum ila ndax jëf la ndax day lànk bañ a joteeg soxnaam ba ñu dindi sëy ba loolu sax beneen àtte la wa am euh, amal lafdu ndaal baat ba fa yanqasimu dana séddalikoo ila sarixin jëm ci baat buy aji leer wa kinaayatin akub dàkkantal wa ma ak lu bokkut ak ñoom ñaar fase dañ koy baat bi ngay wax baatu fase bi ñetti xaaj la am na fas benn nga jëfandikoo baat bu leer nàññi ñoo xam ne kii fase na soxna moom benn werante fase naa la xeet yu mel noonu wala am ti taarixun bu doon arab xanaa daa leer wala mu jëfandikoo dàkkantal dàkkantal ñun olof yi am na ñee dàkkantal yeewi naa la jéggal naa la xeet yu mel noonu dàkkantal la demal sa kër bàyyi loolu xeetu waxin la euh, soo fi toogee yaa fi bàyyi sa bopp wala yu mel noonu boo gisee gura yéyal xam nga kooku niwul fase naa la waaye dafa dàkkantal ak lu bokkut ak ñaar yooyu loo xam ne moom du dàkkantal te it du sariix maanaam du wax baat ba mu leer naññ dana ko indi ñu jël sariix rek mu fas sariixu sariix nag maa mooy loo xam ne fii nekk na ca lafu lafu lafu talaaxi baatub fase xalaa ay yi wajhin ci anam nag kaana moo xam nekk na mooy xëppate lañ koy firee mooy kii fase dafa wax lu leer nañ ñi daa fase fase moo xam ne kenn du naan lu mu ci jubloog est-ce que bëggut a wax lii nàngam ndax ki ne so ki boo gisee gura yéyal ah mën nañ ne ah ndekete kat waa ji daa xew ñu jox ko gura gura gi mu bàyyi ko ci ne bi di wax soxnaam rek ne ko boo gisee gura gi yéeyal maanaam loolu jublu ndax mënees na cee dégg loola mënees na cee dégg loola fase naa la loolu luñ cee dégg leer na nañ ko mooy sarix moo tax maa fii lawu talaaxi mooy loo xam ne baatu fase da caa nekk ak nu mu ko mën a waxee moo tax ma ne lu an yaqoola lu mel ne mu wax soxnaam ne ko anti taalixun yow de aji fasewu nga aw anti mutallaqatun walla yow ku ñu fase nga fase naa la moo xamu leer naññ loola moom jeex na fa samu dana war bi haasa ci lii talaaxu fase wala yaftaxiru du aaje wa ila niyatin jëm ci yéene du jar ñu naan ko loo ci yéene loo ci njublu du jar ñu di ko laaj wa lañu joyal waaxidatun mooy menn fase illa an yanwiya ndare bu dafa yéene aksar lu ëpp menn fase loolu jàngoon nañu soo dee nag bu nee soxnaam anti taaliqun wala anti mutalliqatun wala bu dee olof mu ne eh, soxnaam fase naa la wala bu jëfee ko baat boo xam daal xam nañ ne lii moom fase la loola ca saasa dañuy jàpp ne menn fase la lu dul ne waaja da caa yéene lu ëpp loola su boobaa ñu jàppal ko loola wallahu aalam